بأنني الخديم في المدينة براني الله لدى الكناك من كل جالب إلى المناك أصب أن الله في قرم بسا قبل مبارس الماني خلبسا daan yara yi mu inda daw mi loo bi maax naa ani tasaw mi yasaraniil mu naa la daali barwali man xaadani maa xaaba ya alimu ya malik alwahaabu ya xakimu alim fuaadi min ladunka ilma wa nawiran qalbi wa zidni fahma laqin lisaani waxlulan min uqaad waj'alhu zakiran wa shakiran abad mati'ni addahra bisam'i walbasar wa qawwini bijaahi afdali albasar bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi allazi allama bilqalam allama alinsan ma lam ya'lam wassalatu wassalaam ala asrafi alanbiya'i walmursalin sayyiduna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabi'ahum bi ixsanin ila yawmi jaza ixwat al iman mushahiduna alkiram walmushahidat assalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara noo ngi leen di balaax te di leen balwaax di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole nu defal njëggal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ziyaar di màggal di ñaanal Serigne Touba Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké Basir yàlla na fi yàgg te wér yàlla na dund ko soob yàlla na liggéey lu faw ko njartam ànd njaboot gi ak taalibe yi waaye kilifa diine yëpp bokk fi bokk fi yàgg moom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu bu baax mbokk yi nga xam ne noo ngi nuy xool di nu seetaan ci Sene Info info di nuyu bu baax sëñ Lamine Muntaxa ak ñi mu àndal di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex ci barke Sëriñ Tuba waaye kinu nu bëgg a waxtaanee mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul danaa faral di wax samay wax nag jàpp naa ne kuy wax ci moom rek da ngay barkeelu. ndax moom teeloon naa wax ne kenn xamuma ko dul yàlla xaabat maqaami an siwal baaxil karim wa inna nii abdun xadimun la yarim sama maqaama nëbbu na ko dul yàlla dikk naa ci jamono di jaam buy liggéeyal rasulullah yi liggéey boo xam ne du dog kon kay sëriñ bi li nu mën a xame ci moom rek mooy bi mu li mu dikkee jamono mooy abdul xadim abdul xadim nag li muy tekki mooy jaamub yàlla waaye mu koy kii liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne Seex mat Bamba Xaadimu Rasul sunu borom tabaraka wa taala moo dogal ci moom lii mu dogal yàlla jox na ko ñaari wayjur yu tedd na maam Mariama bu sa jariyatulaayi ak sëriñ maam Mor Anta Sali borom xam bu mag ba waaye xam ngeen ne sëriñ Tuuba diirib li mu nekk ci wetu way juróom ba di sëriñ Mor Anta Sali fanweeri at la nekk ak moom sëriñ Tuubaa mës taxawal dara mës sa jëm dara nekk ci wetu baayam rekk jox ko cëru kilifa di jàng ci daara ji ak a jàngaleel ci daara ji fanweeri at la am baayam génn àdduna boobee nag la ñu xam ne sëriñ Tuubaa mi am na lu mu àndal ndax keroog bi baayam génne àdduna ca Mbàkke Kajoor ñu denc ko déqalee keroog xam ngeen ne mag ña daje woon nañu ñëw ci moom ne ko Mouhamadou Mbacké lenn rekk la nu bëgg mooy dëkk bii sa dëkku bàyyi la dëgg la waaye la Lat Joor buur bu ñuy wax Lat Joor moo ko fi tegoon nu bëggoon nag nu ànd dem ca Lat Joor nga jaalanteeg moom seen kóllëre gën a dëgër ndax loolu dana ci am solo sëriñ Touba sant leen gërëm leen ci seen taxawaay yure rëy yiñ taxaw ci dama ko juróom moom bii waaye la lañu ñu waxaat nag ne ko danoo bëgg a ànd ak yow ca Lat Joor sëñ Tuubaa ne rus naa sol sama dàll di jëm ci beneen buur bu dul sunu borom tabaraka wa la man duma sol sama dàll jëm ci benn buur ci buur yàlla rek la jëm boobee nag la mbooloo ma daal tasaaroo ñii wax ne kii dafa bëggul dara dem nañ sax bañ na dafa dese ndax booba Maroc Maroc buur ànd ak buur xamanteeg buur jaxasoog buur am na solo lool sëriñ Tuubaa cële bind xasidaam gi nga xam ne xasidaam gi tawhid rek la xaalu liye irkan li abwaabi salaatini taxus ca waa isa tux nii kulama ini ñu nga naan mën naa jéng jëm ci kër buur yi ndax su ma demee ca kër buur ya la ma bëgg ci teraanga danaa ko am sëriñ Tuubaa tontu leen ne leen duma man فقلت حسبي ربي واكتفيت به wala suraadiya xayral ilmi wa diini man yàlla doy na ma te doyloo naa ko man Serigne Touba du ma gërëm lu dul diinu xam-xam man Serigne Touba wala suwax saa wala arju siwa maliki li annahu jalla yux ni ni wayun jiini du ma ragal du ma yaakaar ku dul yàlla ndax yàlla moo may jox te moo may musal man Serigne Touba ani ufo wiyu axwaali li man ajazu an xaali anfusihim ajzal masakini nan laa jële sama mbir di ko dénk koo xam ne kooko day tële ci boppam comme ni miskin di tële man ku ma gis may sol sama dal jëm ci kër buur yi lu may wax xanaa xamu leen ne kër buur ya ëtt ya fa la seytaane yi daje aw kay fa yàpp asu nii xubbul xutaami ila jiwaari man duru um raw du shayatin yi mu ma nekkoon Serigne Touba noonu rek la baaxoo ci loolu rek la nekk ilal ilahi bi nabi kulliyati axdi wa xawli amali wa niyati kenn ma saam ci am ci moom wàll àdduna ma saam ci moom wàll jëmale naa ci yàlla ak yonent bi sama lépp sama paspas sama yéene sama jëf samay wax lépp jëmale naa ko sunu boroom tabarak wa taala sëñ tubaa kenn ma sam ci ci moom ci moom wàll sëñ tubaa yàlla rek la ma sa jublu yàlla rek la ma sa jublu moom rek la joxoon boppam moom rek la xooloon moom xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba xam ngeen ne boobee jamono ba mu ba mu ba mu gàntelee kër buur yi ne ci yàlla laa jëm xam nga ne bind na xasaayit goo xam ne ne nit ñi ñu ngi naan dama dese xaalu safi un li sarfi an xumul basari war raxbati an sawil isyani fil basari ñu ngi naan dama dese ngir wuute ma ñu wuuteeg ñoom gis-gis man ma gis yàlla ñoom ñi gis àdduna dem na ba sax loolu ñu ko naan dafa dese ñu ngi koy tàggatee yëguñu ko doom yi moo doon te seli ji Mamadou Mbacké moom dafa dese ndax yàlla rekk la bëgg sëñ Tiwaan alhamdulilah yi loolu de ak cant la xaalu safiun li xubbi xaalixi maliki walam akun lil baraya asaki darari dem nañ ba dese ndax yàlla rek laa ragal sëñ Tiwaan loolu day ay woy la woy wuñ ma woy la te yëguñu ko xaalu safiun li kaw ni lam axaf ahadan wa ma rajawtu siwa rahman sil qadari mu mel ni rek li coow bari bari bari li coow li bari bari bari Serigne Touba Xaadimu Rasuul moom day moom day yàlla rekk la bëgg yonent bi la bëgg alxuraan la bëgg coow lu coow li bari bari Sëñ Touba nee na lu coow li bari bari ñett yi rek ci laa ne xubbiya lillahi walil rasuli walil kitaabi li xaada suuli bëgg gi ma bëgg yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko téere alxuraan bi moo ma melal ni ma mel moo ma def ni ma mel sëñ Tuubaa nii rek nii rek laa def yàlla mi ko sàkk bind ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam gën ci bindeef téere alxuraan bi nga xamante ni mooy wax yàlla nga xam ni ñëpp moom lañ war a jàng ndax ci lañ war a àttewoo ni mu demee ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa nee na rasulullah yi moom a sàkku ci yàlla ngir ma liggéeyal ko raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimu wa abdullahi bu ma sàkkul woon du ma ñëw alallasi talaba kaw ni al xadim lawu salaama zil bariyatil xadim nan la demee ak téere bi sëñ Tuubaa ne alquran moo sàkku ci yàlla ànd ak man ma téye ko bañ ko baax raamal kitaabu kawnuhu ma'i bila tafaruqin wa umri xatxu bila loolu moo waral sëriñ Tuubaa alquran moo ci raw bëgg yonent bi moo ci raw ni mu bëgg yonent bi kenn du ko dab ni mu bëgg alxuraan kenn du ko ci dab moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul boole koog nag dik Abdoulaye xam nga jaamu yàlla jaamu gi ñuy jaamu yàlla bu fekkee am na coupe buñ ciy joxe sëñ Tuubaa ne coupe bi jox nañ ma ko maa dàq jaamu yàlla ci kaw suuf madda ilayya fadlawul azima walam azal abuduhu tasima sëñ Tuubaa dem na ba wax ni bëgg gi ma bëgg yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko téere alxuraan yeggale na ma ci na maay xaritu yàlla maay xaritu yonent bi lam yax fa kaw niya xalilulayi xalila abdi ibnu abdalayi kaw niya abdan xabiban lil ilah xadim ahmada kafani kullulah ma di la yëgal leen nag fi dégg ne ko tedd la nga seeti ko fekkoo muy bég ci sëñ tubaa tedd ga dañ ko koy jiiñ waaye du dëgg ca yàlla sëñ tubaa ne ku tedd da nga bég man wa jaxalil baaxi azizul izza wa bi yu baaxi xisbawul izza koo fi dégg ñu ne ko ragal yàlla la nga seeti ko fekk muy bég ci sëñ ragal yàlla ga dañ ko koy jiiñ waaye du dëgg ca yàlla sëñ tubaa ne ku ragal yàlla danga nga bég ci man darajati kaw nii xadimal moustapha wa bi yu baahi abadan zaw tuqa cheikh mat bamba xadim rasul xam nga ko yàlla defaloon defalu ko kenn tiyaaba ji ñuy sàkku tiyaaba lamin muntaxa tiyaaba da nga koy jëf mbaa nga wax ko boo waxee lu baax am tiyaaba boo jefee lu baax am tiyaaba sëñ Tuubaa man noyyi gu ma noyi yàlla bind tiyaaba katabali sawaaba fi kulli nafasin asamani mina rukunu li najas laysat jawaari i tamilu li aram wala li makruin wa fusubil maram musuma def lu aram musuma def lu yàlla sib xam nga lu tax sëñ Tuubaa ne sama cër yi yàlla ko womat jëme ko ci baax xultu jawaarihi ilal amali saliyaati mukmilal amali sëñ Tuba ne lu coori bari bari bari na ngeen xam ne yàlla fàttewu ma waaye man fàttewu ma ko lam tan sani rabbi wala ansaaka walam tuwajjih lilazi yansaaka weer wi nag biananil xadimu sil madina baraamillahu ladal konaaki من كل جالب إلى المراكب أصب أن الله في قرم بسا قبل مبارس واني خلبسا دان يريم عند دومي لو بما أغنى أني تصومي يسرني المنى لدى لي برولي من خادني ما